audu billahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi teewlu as leen di nuyu di leen siyaare noo ci ñeenteelu jataay ci téereb Xalimag ak Leer tolloon ci wax xeetu mbindi sëriñ bi ñoo bu njëkk bi ñaareelu xaaj bi ci xeetu mbind sëriñ bi mooy yi nga xam ko bind di ci deeyaaleek boromam di ci liggéeyal yonent bi salallaahu alayhi wa sallam waaye nag mu jaare ko ci ay wesar am mbindi wesar la du ay waay da ci gën a fes ci wesar yooyu daa jëm ci julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ak ay ñaan ndax sëriñ bi moom daa wax ne mujj naa doon liggéeykatub yonante bi salallaahu alayhi wa ci way yoo xam ne dañ koy nos ak i wesar yoo xam ne dañ koy tolloole bi xormatil mustafa man sirtu xaadimahu bi nasmi wa nasri sajaan thumma kon wesar yooyu mooy xaajub ñaareel bi xaajub ñetteel bi mooy xasida yi xasida yi ñooy way yi sëriñ Tuubaa way way di ci deeyaale yàlla ci tudd ko ak sant ko di ci liggéey ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tàgg ko ak julli ci moom kon ñett yi ñoo di xeeti mbindi sëriñ bi ñu dikk nag ci xaaj bu njëkk bi muy bind yi nga xam ne ñoo jëm ci téere xam-xam bind yi jàngale diine du nu umpale mukku ne sëriñ tuuba aji yeesal diine la loolu yóbbe na ko mu teel a tàmbali di bind ngir jàngale li firndeel loolu mooy téereb tawxiit bu mag boobu imam sanusi bind te mu tudd umul barahin teel na ko waay lool moom la tuddee mawaxibul xuddus sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na ci kanamu sëriñ Mor Sali woy juróom la ko waaye ba sëriñ Mor sax daan ko jàngale jàngal na ko doomam sëriñ Afiya Mbàkke ak doomam sëriñ Seex Coro Mbàkke nu dikk ci fànn yi nga xam ne sëriñ bind na ci téere xam li mu jiital ci mbindam moom sëriñ bi mooy xamle ñetti xaaji diine yi ñetti xaaji diine ji imaan islaam ihsaan xam-xamu tawxiid mooy jàngale imaan xam-xamu fiq mooy jàngale islaam xam-xamu tasawuf mooy jàngale ihsaan bu dee tawxiid nag dafa tënku ci al asaacira ñoom ci ahlu sunna wal lañu bokk seen pas-pas lépp dañu ko delloo ci li alquran indi ak xadis alashaira ñoom ñoo askanoo ci njàngaleem abul xasan alashari kon ci wàllu tawhid taalibe bi war naa xam sëriñ bi ci gën kuréel la ci bokk kon ci kuréel googu la sëriñ ba bokk muy ahlu sunna ci alashaira bu dee ci wàllu fiq sëriñ bi mi ngi bokk ci mu ngi tënku ci ngirum imaam Malik mboolem lu bind ci fiq di jàngale ci ngirum imaam Malik la sukkandiku mooy tegtalam ni nga xam ne nii lum mu bind ci tawxiid dafa sukkandiku ci al ashaira bu dee ci wàllu tasawuf delluwaay yi muy def ci tasawuf yépp dafay doon delluwaay yu sax ci alquran ak sunna te ki yaatal njàngale moomu ci wàllu tasawuf mooy alimaam Junayd sëriñ bi tasawuf boobu nga xam ne moom la imaam Junayd yaatal te imaam Junayd daan wax ne sunu xam-xam bi muy xam-xamu tasawuf dafa tënku ci alquran ak sunna ku déglu xaddis yi di toog ak ñi dégg fiq jële ab yar ak i ci ab sëriñ wala ab imaam ku ko topp yàq nga sa topp kon tasawuf mooy lu wér loo xam ne lépp ci alxuraan ak sunna lay delloo muy jëm ci sellal ay jëf xeetu njàngale moomu nag ci tasawuf sëriñ tubaa ci la tënk ci la tënk am njàngaleem kon <clears throat> loolu moo jëm ci wàllu delluwaayam bu nu dellu see nag dikk ci xeetu téere yi Sëriñ Tuubaa taalif yim taalif ci tawxiid yim taalif ci fiq yim taalif ci tasawuf assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa